ba topp gannaaw bu tabax eh, daara ak taxaw ci jàlle ba ca topp ci gën ni ci gën mooy taxawu ay jirim kafaalatul aytaam jël ci abi hurayra radiyallahu anhu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne <coughs> kaafilul yatim kaafilul yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa kahaatayni fil janna kii taxawu jirim moo xam sab jirim la moo xam jirimu keneen la nee na ku koy taxaw maag moom bis penc nii lañu ñu demee ci aljanna ni ñaari baaram yi deme ñeenteel bi bu taxaw jirim jàllee bëgg naat <coughs> mooy aljihaadu fi sabilillah jihaad ci yoon yàlla jël nañ ci Zayd ibn Xaalid al Jahani wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne man jahaza gaasiyan fi sabilillahi faqad gaza ku gis ku jëm ci yoon yàlla di xaraji ji nga waajal ko waajal ko def dépassé alal ci moom bam bam bam mën a am taxawu jihaar nam nam bëgg a jihaare neen donte demoo it yow jihaar nga ci yoonu yàlla ba ca topp su jihaar jàllee bi gën ci li ñuy def dépassé alal mooy maye ndox naan lal ko mar ndir na lu xeebu waaye lu ama am solo la ki bënn foraas ngir ñëpp di ca naan wala nga bënnu teen ngir di ca naan lu bari tiyaaba la am na xisa boo xam na ci xadis bu wér wax na abi hurayra moo ko solo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wax na ne baynama rajul yamshi bi tariqin ishtadda alayhi atash fa wajada bi'ran fa nazala fiha fa shariba summa xaraja fa ida kalbun yalhasu yaakulu sara min al atash fa xaala rajulu laxad balaga hada al kalba min al atashi mathalu mathalu lati kaana balaga minni fa nazala al bi'ra fa malaa xuffahu maan summa amsakahu bi fiihi xataa raqa xataa raqiya fa saqa al kalba fa shakara fa shakara allahu lahu fa xafara lahu yenn saa su nee na benn waaye da doon dox ci aw yoon ba aw mar dab ko mu mar lool baag ci sonn yàlla def mu dem ba yem ci benn teen wala genn sayaan mu dal ci dugg naan ba màndi bi mu naanee ba génn gis ab kal xaj boo xam ne ab dawkat mi ngi mar bay lekk dewande ji ngir aw mar mu ne ah dawkat bii kat daa mel li ma gaaroon cew mar moo ko gaar daal duggaat ci teen bi duy aw dàllam ba mu fees ndox mu génn nàndal ko ba mu màndi ca la ko suñ borom gërëme ba taboo ko aljanna moom waa na benn xisa boo xam ne dajewu ma moom fenn ci benn téere waaye dégg daanaa ko dégg ci sëñ sàmbay mu di ko nettali mu ne benn borom xam benn nitu yàlla bi mu faatee suñu daf koo jéggal da ko laaj na ko ndax diw na xam nga lu tax ma jéggal la mu ne ko xanaa ko koor yi ma daa woor mu ne ko déedéet mu ne ko xanaa fanaan gi ma daa fanaanee julli mu ko déedéet bala ma xamoon jax mu ne ko bi ngay taalif sa téere sàngam ba toll ci barab sàngam sëpp nga sa xalima bay bëgg a bind aw weñ naawe ca ngiroo maram tong ci xalima gi nga yërëm ko téye xalima bañ ko teg ci kay bàyyi ko ba mu naan ba mande ba naawal boppam yërëm nga nga ko yërëm bàyyee ko mu naan ci loolu laa la yërëm tey ba tabalal jànn nga gis kon kon mala yi nga xam ne sax amutum xel ngam nan la ko ngir yàlla ni man caa tabbi aljaan su ma jégloo ci rawati nag ki mandal nit dama ata rawatin ab jullit ma da am solo la ba ca topp bu jàllee may al awqaaf al islaamiya mooy waqful lillaahi ji ma doon tudd léegi daara ji ci loolu la bokk xam nga daara ji fi day dugg ci place yu bari ma ne tabax jàkk ak dundal ko da cee bi soo ñëwee ci waqfu lillaahi mu tabee ci biir ndax waqfu la wax naa ko ci njaal bi ne waqfu la du lu ñu doon lu ñu jaar lu ñu maye waaye yàlla la fi nekkal li fi àdduna gi dund ay maam jaar dafa jàng ngir yàlla génne fa sos yeneen daara ay julli di ca génne loola yiw wa na mu toll kenn kenn xamut ko dul suñu ndax fi ne daara jum juraat jum juraat ba tey yàlla ba dafay fekk si ka ko sosoon ak ka ci dugal loxoom kon waqf ci sadaxaat jaari yi la bokk ab yoolam dafay wéy ci dundu nit ki ak gannaaw faatoom jëli ñu Abdullah ibn Omar mu ne bàyyam Omar dafa amoon suuf ci barab bi ñu wax xaybar ci Madina bis mu ñëw ci yenn saa di ko ca laaj ndigal ne ko ne ko yaa Rasulullah ma ko dama am suuf ca Xaybar soo xam ne oo ma jenn alal ju ko gën a riche oo ma alal ju ko ëpp valeur ma lay laaj na loo ma ciy digal yéen tamit ne ko su la soobee nga def ko xobus mooy nga xabus la ko mooy xobus ak waq ak waqfu ñoo bokk ay maanaa rek mooy nga jox ko yàlla nga xam la cay jóge dootu ko jariñoo waaye fuqaraay masaakin ñoo ko jariñoo nee na Omar koy saraxe ci yoon yàlla nga xam ne kenn dootu ko donn kenn dootu ko jaay kenn dootu ko maye waaye <coughs> miskin yeeg faqara ñoo ko jariñoo ak jaam ñi ak ñi ne ci yoon yàlla ak doxandéem yi ak gan ñi lu ci génn léegi ci ñoom la jëm su jàllee ba gën mooy iftaaru saaimin ki woor ba ngoon ko jox ko lu mu doge lu mu néew néew ba tey ci li ëpp solo ci infaq fi sabilillah nga xam jur ay yo- mën a jur ay yor yor xadis yu bare bare ron na ci dama toll ci tënk bañu gudd ba bañu gudd moo tax may may tënk yu bare bare ron na kon damay ñëw rek ku ci doon tom mujj bi mooy infaax boobu nag wàccuwaay wi mu am ci yoonu yàlla xam ngeen ne Serigne Touba dafa am lu mu sampe yoonam wi du yoonu murit mooy su moom def ko digal ne ko rabbe asxaabaka bil himmati mbooloo mi nga àndal nag leen tarbiya ci yitte ju kawe yitte ju kawe nag su fekkee dañ caa yar nit dafay daal di nekk kon koo xam ne dundam gépp léegi yëngutu lay doon na yitte dafay may murit bi mu nekk koo xam ne ay maqasidam ay julluwaay dafa nekk jublukaay yu kawe kawe day mën a amal ay juhóodaat ay jëf yu màgg yu bari ngir maanaam ak bëggam àdduna ak alaaxira te bëggoogee su dee ki am yitte bëgg ga ci gën a kawe mooy ma am ngërëmal yàlla wa ridwaanu minallaahi akbar dafay bëgg am ngërëmal yàlla borom yitte yu kawe dafay bëgg am àgg ci yàlla dafay bëgg bokk ci ar rijaalu saabiquun gaa yàlla yi jiitu ki bëgg lool nag kon mënta ñàkk kon ay itam nekk yitu yu kawe ay yëngutam nekk yëngatu yu kawe yu màgg yu rëy bokk na yitte ju kawe murit bi day bëgg doon ki gën ci mbir mu mën a doon àddina ak alaxira bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne xayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy kiy jàng alxuraan ak di ko jàngalewaat kon murid day bëgg a bokk ca kuréel booba ngir bëgg a bokk ci ñi gën su yent bi sallallahu alayhi wasallam ne alxalqu ayaalullah wa ahabuhum ilallah anfaum li ayaali bi ne yi njabootu suñ borom lañ te ki gën a yàlla ci njabootam nga mooy ki ca ëppal nja ëppal njaboot gi murid dafay bëgg a bokk ca ña ëppal njaari njaboot gi ngir bokk ci ngir bëgg bokk ci ñi gën mooy borom yitte ju kawe suñu def saa soo xam ne sayyidul xawmi xaadimuhum kii sangum nit ñi may ka nangoo wàcc di leen liggéeyal lu ñu wax mu daw defi ko mu day bëgg bokk ci kuréel booba ngir ëllëg bokk ci ñi gën day bëgg nekk xaadimul xaw mi borom yitte ci kaw borom yitte ci kaw te mooy murid bi su yëntu saa sama waxee ne al yadul ulya xayru minal yadi sufla loxo bi féete kaw di joxe moo gën loxo bi féete suuf di nangu day bëgg fexe bu bokk ca ñay joxe bañ bokk ca ñay nangu murit borom yi tëjukaayu foofu lay nekk day bëgg bokk foofu su indi saa sama ne waxee ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki ci gën ci soxnaam te maa leen gën ci samay soxna murit bi su déggee day bëgg bokk ci ñi gën ci njabootam ngir bokk ci ñi gën kon borom yitte yi ko mooy kay dàkk lu ne la rek tous day bëgg bokk ci ñi gën Sëñ Tuubaa ci loolu la yar aw nitam moo tax ma yar leen ci nangoo liggéey ndax nangoo liggéey moo a féete ci kuréel booba ñett ci la samp yoonam xam-xam yàlla liggéey kon na murid bi bëgg loolu du noppalu kon wa day yëngu waxtu nekk ndax dafa jublu dafa dëgg dëgmal ñaari dund te gu nekk bëgg na ko jox xàqam muy dund àdduna ak dund alaaxira kii bëgg matal yooyu nag faw dana sonn loolu la Sëriñ Tuubaa wax naa wa amal li si dunyaay bi ma takunu tamkusu fiha ayuha alfatinu wa amal li oxra xadra ma tabqa gada fiha wa man xaalafa laa qarrada na nga jëfal sa àdduna na nga jëf ngir sa àdduna kemtu laayal li nga fi nar a sax gannaaw da nga fi nekk kon liggéeyal loo fi mën a jariñoo diiru li nga fi nekk naa na nga jëfal sa àllaaxira it jëf gi sa àllaaxira loolu tax la fa nara sax ëllëg kon jàpp naa la nga war a sonnal dund gee moo war a ëpp li nga war a sonn dund ndax dund lu yem la dund gee nag du jaax kon li ngay ci yoonu yàlla lépp lu jëm dundug ëllëg la moo tax Sëriñ Tuubaa soññ éytal bi ci nangoo ja sonn ci jaamu yàlla ak liggéey ndax dafa ñaari baat yu niroo te wuute muy jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla bokkuñu al ibadatu wal xidmatu soo koy misaal da wax ne ibada mooy loo xam ne yàlla dong ko soxla ci misaal ibada mooy loo xam ne yàlla amul keneen njariñ yàlla dong soxla xam nga sooy julli amul keneen njariñ su may julli sama julli gi amul njariñ keneen su may woor sama koor gi man dong la jariñ amul njariñ keneen su may xaj sama jikki man dong la jariñ su may joxe ma dong la jariñ yooyu yi daal yàlla dong ko ko bëgg lu mel ni woor julli ak yu mel ni ñoom ngan amul njariñ keneen loolu mooy ibaada xidma nag mooy jaamu yàlla goo xam ne keneen da cay jariñu lu mel joxe asaka xam nga ak jaamu yàlla waaye li nga yëg di ko joxe nit nga koy jox kon yaa ngi jariñ kooko koy kiy dépensé ci àllam ci yoon yàlla ci liggéeyal yàlla la bokk dafa mel ni ci la Sëñ Tuubaa dafa ko jël mu nekk mëbda xawi xidma mëbda bu dëgg principe la bu dëgër ci biir yoonu murid ndax day mel Sëriñ lim liggéey lépp ci xidma la murid li ñuy liggéey lépp ci biir xidma la tàbbi ta mooy dimbale jaamu gi ndax su ma dara taxu ni mu bind ñu lu may ngir ñu jaamu ko képp wax ne jaamu gi mooy liggéey bi jaamu gi mooy liggéey bi lu ko génn nag day dimbali jaamu gi rek loolu la daa wax Sëñ Tuubaa yar kon ay muritam ngir loolu ci ñeenti yëf bi njëkk mooy li ñu te al ixtiyaat al mooy fàggu lu la ëpp xam nga Sëñ Tuubaa dafa am gisin yu bari da cay wuute gisin ak gaa yi yàlla yu njëkk ya njëkk am na yoo xam ne daa yar seeni murit ci doylu goo xam ne dañuy wax ne soo xëyoon di wut ab dun soo demee ci géej gi jàpp wenn jën woo mën a añ reer ci rek doy na demal jaamu Yàlla Sëñ Tuubaa ko noonu ndaa ci ngaa war jëf lu la ëpp ba am laa denc loo xam ne projet lislaam bu taxaw nga mën caa dugal saa bu jafe-jafe économie dikkee nga mën caa dugal sa ci yoon yàlla mooy ixtiyaat ma dem murit yi bu njëkk dañ daan liggéey dañ ca ay sàqi fukk sàqi juróom yu bari seex su mag si suñ masaan di bojju addiyee di ko yóbbu xam dañ daan woote am mbojj ne seex sàngam woote am mbojj ci tool mi nekk ba sàngam ngir joxe ji hadiya mboj ji moom yi ñu doon ba ña la ca ëpp la ca ëpp ñaar doon dugub bi ren dugub bu daaw mbaa dugub ji daaw ji lay doon ñu di ko bojj di ko joxe ji hadiya suñ ko dexee waxee xel dem ci ko mel ni Cheikh Ahmadou Ndumbe ci ñi nga xam ne ñi gën a sonn ci liggéey Sëñ Tuubaa ci ci ci wàllu jëf surtout ci bay liggéey doole xel dem ko mel ni Cheikh Ibra Fall Njaañ si masamba ju sam ila axiri duñ jeex maam si anta borom gaawaan maam coon ibra faati ila axiri ñu xam ne Serigne Touba am na jamono yoo xam ne crise économique dafa amoon ba tubaab yi naroon na déwalee xaalis bi waaye Serigne Touba 500000 la yëkkati jox leen 500000 ci jot jamono 500000 yooyu moo tax. déwale yi ko ñu ñu famb ko def mujjuñ ko def 500000 nekk nekk foon tëdd nit ñi di di xiif di soot xiif xiif faatu mooy dañoo am lu doy ba ba des denc ko ngir xaar loola mara ba lañ naan xaalis du faj de gàcce faj mara ba gàcce teewee faj na ko su ko denc doon ndax loolu kon daan saafarawu déedéet manteen Ibra Faati ba tey crise économique mas naa am tubaab yi lépp ko ay sàq bojj ko tasaare ko séddale ko waa réew mi nga xam ne ay sàq yu bari la leen lebal bi nga ko séddale waa réew mi def naa ko ci yoonu yàlla nga xam ne mbayum kenn nit mbayum benn murit képp xeet lim mbayum benn muritu Sëñ Tuubaa xeet li réewum kon gis nga leen Sëñ woon maam Seex Mbàkke borom gaawaan ba tey crise bu mel na mas naa am crise économie dafa dem bi jënd fa bato ceeb bato ñëw seetli ko waa réew mi ba tey benn muritu Sëñ Tuubaa xeetli réewum lëm kon Sëñ Tuubaa dafa xeetli aw dafa yar aw nitam ci nangoo soog liggéey ba am lu la ëpp ngir mën a dépense ci projet lislaam yi saa bu jafe-jafe amee nga mën ko saafara ñaari mooy al i'timaadu ala nafs mooy sukkandiku ci sa bopp sëñ Tuubaa dafa bokk ci lim lim yare ay ay taaliba mooy sukkandiku ci sa bopp bokk na ñàkk ci sa bopp mooy yàccaaral xam dañuy jaawale ñaar at tawakkulu ak at tawaakulu ñaari baati arab yu niroo la waaye aka ñoo soree at tawakkulu mooy wakiilu ci yàlla mooy da ngay kër-këri di sonn nangoo liggéey waaye gëm ne nag lii mayu la yàllaay maye waaye yàlla lam lay maye nag ca la koy jaarale da ko doon sabab tawakkul na mooy nga ne ah yàllaay maye rek daal di daal na jaaxaan ma yàlla maye dina am su yàlla joxe daal ko njëru may sonn loolu yàccaaral la tudd du may ni dara kon yàccaaral bokkul ci sukkan ci sa bopp ba ne bokk na ñàkk sukkan ci sa bopp itam mooy tàllal sa bët bii jëmale ko ci ay sarax yu jóge ci ay jëm si ci yow mbaa ay ndimbal yu jóge ci ko sori mbaa ko jege nga da ngaa bëgg daal ay sa dund ci ñu lay dimbale rek loolu ba tey ci ñàkk sukkan ci sa bopp la bokk bokk na ci ni ñàkk sukkan mooy ci ay bor mooy bala nga réaliser dara faaw nga dem ca banque ba leb ba di sukkandiku ci sa bopp wala lim doon da nga xaar état lu doon da nga ne at état bi lay xaar ba dee sukkandikoo ci sa bopp. murid ñu njëkk ya ku ñu misaan tërbiye ba wàcc tàmbali liggéey du xeeb capital alalam donte ab téeméer la jën la am mbaa cent franc day dem jënd ko ay quelque socc ay benn benn tàngal def ko ci ab layu di jaay layu ba dem ba doon kees kees ga dem ba doon ëskantin dem ba doon magasin ba tey booy xool li ëpp ci économie réew mi ci loxoy murid yi la nekk mooy dañoo nangoon a sonn te xeebuñ dara xeebuñ benn liggéey xam nga ñaar ko tubaab yar jàpp nañ lum liggéey lu toog ci bureau bay signé jàpp nañ daa tardé wala dañ ko doyadal ki Sëñ Tuubaa yar nag du xeeb benn liggéey buñ bu ñu waree segal mooy dem segali suñu waree yanuy saako ci marché mooy dem yanu ji suñu waree bitigu mbagg moo ko doon defee xëybul dara waaye moo tax tey jii li ëpp ci économie réew mi ci seen loxo la nekk. kon sukkar ci sa bopp daa bokk ci li Sëñ Tuubaa yare ay taalibeem moo tax mu bañoon lool kuy torox li ci kanam borom alal jullit wër ñàkk fayda Sëñ Tuubaa daa wax ne waxtu wa demay toxtu ci kanam borom alal doon sax kooka saalix la ko te yàlla waaye am na alal tax nga toxtu ci kanamam sa diine bu ñetti xàññaar ñaar yi ñàkk nga ko su fekkee nekkul saalix nag far zaalin la sa lépp diine nga ñàkk tawaaduun ilal ganiyi saalixi yudhibu sulusay diini kulli saalixi amma tawaaduun li zaalimin fala yubqi min ad diine la yaadan unqila moo tax murit yi bu njëkk xamuñu woon leb jiwu ci seko mooy dañ daa wàññi jiwu da ngay bàyyi lu doy wàññ génn ci si diwu déwén door a jaay li ci des Sëñ Tuubaa am na ko mas a ñëw ci moom xam nga su suñ masaan di bëgg a ji di faras dañu indi dugub ci dugub ci Sëñ mu ñaan ci ñu doo dem ji am ko ñëw indi ñaari takki dugub di ci ñaan lu ngir bëgg a faru ji sëñ Tuubaa laaj ko ne ko li lii lu mu mu ne ko lii day dama ko wàññi woon aw jiwu ci sama mbayum daaw lii nag seko la dama koo leb daal ne yóot la mu wàññoon ñaan ca ne ko lenn du ndax bàcc ndax barke du nga lam wàññi moom la yóotu ñaan ca ne ko lenn ndax barke du ca lam leb kon li sëñ Tuubaa yare aw murit xamuñu woon leb waa dégg nga ci sama la nga am mu néew mu bari nga tàmbale ci mu yokk ñetteel bi ci lim ay yar état mooy alxanaa doyloo li nga am te bokk na ci ñàkk a nag mooy xeeb sa capital mooy li doon wax léegi nga xam ne faaw da ngay dem ci banque yi lebi rek doo mën réaliser dara bokk na ci ñàkk a doylu mooy xeeb sa tolluwaay ba yóotu tolluwaay boo agut ci misaal yow dugg ci car rapide képp nga tollool ngay sob naa dangay jël taxi sa dara jaagu ca mën na la indil jafe-jafe wala boog yow ci jël taxi doo nga toll ngay sob sul di leb di jënd oto mu indil la ëllëg jafe-jafe yow kat ci sol lu woyof nga toll moom sa po sa po solol nga dem lebi ngir sol ci jasneer yi comme ñëpp masiris yi comme ñëpp ëllëg nga am jafe-jafe subaa ña ngay topp na duñ ko fekk wala boog yow ci tam gëblin nga tollal wala sàggeen nga tollal nga ne yee da nga leb banque ngeen ne da tabax da nga teeraas ñëpp ba tey la mu jot jafe-jafe kon doylu da ngay yam ca nga tollal ci Sëñ Tuubaa ay ak njabootam dafa jeexital ci ñoom foo demee ci dëkk yi gën a yi gën mag mel ni Mbuur wala yenn dëkk yi da ngay gis ña fa dëkk soo leen xaaj ñetti xaaj ya ñetti xaaj ñaar ya kër yi dëkk moomuñ ko dañ ko luye ne ca moom seen kër ñu ñu néew la waaye sëñ Tuubaa ni ak ni ni ab yaram jeexte ci ay mutam boo boo demee Tuubaa soo xaajee ñetti xaaj ñaar ya kër yi kër yi dëkk ñoo ko moom ñu néewoo fa luye kon yar ba jeexital na ci ña fa dëkkit ku lam toll lool la def ka toll ca sàkket mbaa kiring tëng moom ngay fekk ci këram ka toll ci gëblin gëblin la def ka toll ci terrasse door a terrasse ka ko mën romb door a étage door a boo xoolee kër tubaa Tuubaa nit ñi da ngay gis këru étage gu riche këru sàkket taq ca may kon yar ba jeex dem kenn ku nekk fa nga toll rek fa nga fa nga yem ba dee Tuubaa am nay taxi am na ñu ami oto am nay njaaga njaay am nay sareet yëpp day fees bu xëyee di mbat sareet yëpp day fees kan ña tolloo sareet dugg nañ ca sareet ya njaga njaay day fees ña ca toll dugg nañ ca taxi dañu am client ña am ña am ña am ña am ña toll taxi jël nañ taxi waaye ña am seen oto taal nañ xëyee mooy kenn ku nekk danga dund la nga tolloo kon xanaa aboobu Sëñ Tuubaa daf cee yar ay muritam ba ko ñeenteel te mooy bi ci mujj nag mooy at taawun dafa yar ay ci dimbalante na ko na xam suñu boom mooy jox wërsëgam ku ko soob wala basata llahu risqa li baadi la baxaw fi l ard walakin yunazilu bi xadarin ma yacha innahu bi ibadi xabirun basir suñu boom nee na yàlla su fekkoon dafa maase jox ñëpp alal kon dañ bew ñëpp dañ bew ci kaw suuf waaye ku nekk daf lay jox la tolloog yow ku ci nekk day seet la gën ci yow kii kat am alal la gën ci moom mu jox ko alal kii kat ñàkk gën ci yow ndax bu nga joxoon bu nga alal mu bew mu ñàkk loo ko ndax ne sunu doon ku xam ay nitam la ku xam ay jaamam la te ku teg bëtam ci ñoom la dimbale goo dimbalante googu moo tax sunu baam farataal asaka dimbalante moo tax ñuy digle sarax moo tax ñuy digle maye moo tax ñu digle mboolem infaq fi sabilillah bu ñu def rek dimbalante ko tax a jóg la ci biir yoonu murit ngir yar gu leen ci suñ tubaay yar ndax waxoon naa ne murit bi tusu day bëgg a bokk ci ñi gën te neewoon na yoon saas loxo bi féete jox moo gën bi feesu di nangu moo tax saa bu koor aksee ñu am ñëpp jënd ay suuka su du jeex yut kilifa yi kilifa yi ñoo xamee ñi ñàkk ñu ñu séddale ko ña ko yayoo su tabaski agsee ñoom ñëpp jënd ay ay camion yi xari xari xari tabaski yóbbu ca kilifa kilifa ga moo xam ca ña ña ña ko aajoo di ko si mu séddale leen ko su màggal ñëwee muy dem joxe ji addi ay nag sëñ bi xam na ña ko yayoo mu séddale leen ko su gàmm ñëwee noonu kon dimbalante kon lu siiw la lu ñu xam ci yoonu murit la kon nag loole ci Sëñ Tuubaa yaroon ay taalibeem ku war nay firnde waxtu nekk ci sunu ci sunu biir buñ ko xewil la xewoon ci yoonu murit mooy sunu valeur buñ ko ñàkk kon nañ fexe ba dimbalante bu baax a baax kon ñi ngi tënk foofu di jéglu lu baax a baax eh, tëb naa nag lu baree baree bari ndax bañ a sànk lu ëpp ci waxtu ñu ngi jéglu lu baax a baax lépp lu ci njuumte boroom xam-xam yaa ngi di toog lu ci dëng dañ ko jubbanti lu ci manqué dañ ko motta ilal islah yàlla sunu bam boole dimbale mboole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangul suñu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillah baarakallah uh, fiik sëriñ Mamor li nga xam ne moom la mbokk yi séentu woon ba tax ñu tànn la ci mawduu bi wax dëgg yàlla gis nañ ci lu kawe sunu njort bu baax a baax indi nga ko indi nu rafet wu dal joxe ñu ko joxin woo xam ne par benn benn ñu di ko mën a jël di ko enregistré ba képp koo xam ne toppoon nga jotaay bi yaakaar naa dañ ci jële ay njariñ yu bëree bari xamal nga ne suñ borom daa dogal ci doomu aadama muy koo xam ne mënul ñàkk wërsëg ndax lépp lu ma soxla ci wërsëg lay mën a juddoo waaye nag wërsëg woowu suñ borom daf ko koo jox ngir mu dimmandikoo ko waaye yëg ci yàlla mooy mu ko ci delloo ak cant ba tax na loolu sax day mel ni nekkul alalam waaye daf caa nekk kuutaat muy loo xam ne dafa jaar ci loxoom yàlla dénk ko ngir am lu mu ko ca def loo te loolu suñu borom yaxal na ko ci téere bi wax waa wa anfiqu saxla jaalakum na fii de leen jël ci li nga xam ne dama leen cee def ngeen di kuutaat ngeen di ko delloo ci man mi nga xam ne ma leen ko dénk te loolu moo doon doxinu saxaaba ya moo doon doxinu mag ñi baax na comme ñi nga daaneele xamal nga yoon tamit ne ndeke al infaq fi sabilillah dafa lëkkaloo ak mbooleem jëf yu baax yi tàmbale ko ci ngëm yàlla ak julli ak woor ci biir téere bi ci bi ngay wax ci njëlbeenu téere bi bi suñu borom di wax ñi gëm rey bu mooy ñan dafa wax ne mooy ñiy julli waaye tey joxe seen alal ci yoonu yàlla kon loola day wane ne kon am na wàccuwaay bu rëy bu baax a baax nga wan ñu ay xeet yu wute yoo xam ne am na ko tamit waaye la ca gën a màgg rek mooy lu la war ak loo xam ne yaa koy coobarewu loolu war ñëpp xam nañ ko tamit azaka yu ñuy coobarewu nag nekk ay majalaat yu yaatoo yaatu yu wute nga indi ci yu bëree bëri tudd ci waqfu ba tërkis sax ci euh, dëkk bu tedd bi rawatina daara jii di daara yi soxna jaara te ginnaaw yàlla jataay bii moom moo ko waral wane ni mu nekkee barab boo xam ne barab buñ ñu war a dugal loxo la barab boo xam ne barab bu ñu war a bàyyi xel la ngir li mu dajale ci ay xeeti infaq fi sabilillah ci diggante fexe ba mu jëmm moom barab bi nekk fuñ ñu mën a nekk waaye fexe ba mu am istimraar ni am ak continuer di wéy ñi ci mën a def liñ ci bëgg loolu tamit leeralal nga ñu ko bu baax a baax waaye xamal nga ñu tamit nañu def sa alal ci yoon yàlla moo gën a gaaw ci texe dugg àjjana ndax ba suñ borom wax ñi nga xam ne ñooy àjjana daf caa tuddaale ñi nga xam ne ñooy joxe seen alal ci lu nëbb ak lu feeñ alladina yunfiquuna fi sarai wa dara walkaadimina alxays kon loolu day wane ne kon am na solo lool wan nga nunu tamit ne dafay musal nit ci sawara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne fegalal sa bopp doon doonte ci xaritu tàndarma la kon wane nga ne kon joxe sa alal ci yoon yàlla bul ci xeeb dara lu mu néew néew suñu boroom xam na ko mel ni la waxoon ci aaya ba ne lépp li ngeen def ci yoon yàlla suñu boroom xam na ko tey dana leen ko jox kuutaat la kon loolu lu am solo la nga wan nañu nag ne nekkul ne rek bu ñu waxee jox sa alal ci yoon yàlla li muy am am solo danga nga koy joxee nu loo neexe am na nuñ ko war a joxee ngir liñ ci diggee nga jot ca loola la cay jiitu mooy nga sellal joxe nu te mooy pas-pas bu set wicc te mooy yéene bañ caa def lenn loo xam ne luy nuru ak ngistal la luy nuru ak lor ca ki koy jox la wala nga di ko ca ñax wala nga di ko ca xeeb ak yi demee ni ki noonu kon yàlla kese na tax loolu dañu wax ne Cheikh Mamadou Bachir daan na ci def am njàngale mu mag waxees na ne dafa am taalibe boo xam dañ ko mës a téye njaareem moo dem lijjanti ko ba mu génn mu wax sëriñ bi na ko waaye dañ maa tegoon alamaan ba Bachir na ko alamaan jiñ la teg nañ leen ko jox waaye boo leen ko jox na nga ci yéene addiyee sëriñ Touba nga xam ne kon li nga wax ne looy def na ci na nga ci yéene ab yool dafa am solo danaan wax ne boo di gëj oto sax booy paas na nga ci yéene addiyee sëriñ Touba kon ndekk jullit daraam neenul moo dul xam rek ba tax yenn yi mu di koy jàppee jëfi aada waaye ndeke loo def ak jaamu yàlla rek mu dig jaamu yàlla kon loolu lu am am solo la te it bu ñu joxe ñu joxe lu am njariñ te bañ di joxe loo xam ne soxlaatunu ko su mboro waxoon ne wa yut'imuna taama ala hubbihi miskina nit ki buy joxe la muy joxe na ko joxe ci ak bëgg te loolu da ko doon melale gaa yi ñi nga xam ne bu ëllëgee ñoo yeyoo ndox mu neex moomee nga xam ne ña ngi ko njare kaafuur kon loolu day wane ne kon joxe lu am njariñ tamit baax na lool waaye tamit eh, nit kii war nay digg doomu bañ buy joxe dugal ci ak yàq ndax suñu borom dafa bañ yàq lool waaye bañ a korkoral nag dugg dugg ci ak nay kenn nu ma ko waxee nga xam ne nit ñi jàpp nañ ne lu ñu war a joxe lu ne lu amul solo la bu dee yére la bu xar lay doon bu dee dàll la bu xar lay doon bu dee xaalis la dërëm lañuy seet buñ ko amul door a jël ñaar dërëm loolu tamit du aw joxiin kon loolu mat nay bàyyi xel bu baax a baax te loo man tamit ci di ko sellal ci wàllu nëbb gi bu fekkente ne gis nga na nëbb gi moo ëpp njariñ nga di ko def dañuy wax ne ku ñu wax ali zeynil abidin nekk ci doom Seydina Xuseyn dafa nekkoon koo xam ne dafa nekkoon biir Madinatul Munawwara mën a a joxe alalam ci yoon yàlla lool waaye ni mu ko daan defee guddi ba guddi la daan wër di ko joxe daan def bu guddi jotee muy yonal boppam ay saako di wër nit ñi ñàkk ñi di ko séddale day sànni kër gu mu àgg day sànni rek ci ëtt ba rek daal di génn dem ñu xëyee gis ko duñu xam ko fi indi nee na ñi ñàkk ñooñu dund nañ ci ab diir xamuñ ko leen di jox alal jooju ku mu doon bi mu faatoo ñu toog ab diir gisutuñ ko la ñuy doo ko xam ne kooku kon moo ko daan indi te fekk na bi mu faatoo bi ñu koy waajal di ko sang dañoo gis ci ci digg ginnaaw gi mu def ay ay jeexiti góom yoo xam ne ay légér yu mag yoo xam ne dañoo gis ne ndeke saako yi mu daan gàdd ci guddi gi moo ko yóbbee kon loolu day wane ne kon joxe sa alal ci gi lu am am solo te kooku surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te loolu la doon def Abdullah ibn Mubarak borom xam-xam la boo xam ne ñëpp xam nañ ko daan def ne joxe ci alal ci yoon yàlla li mu ci daan dépensé par année kenn mën laa wax ñaata milliards daan doon ndax yàlla da koo mayoon alal wax nañ ne mas naa génn di aji dem ba ci ab dëkk mu am fu mu toog di noppalu moo ñi àndal gis ab euh, jigéen joo xam ne dafa dem ci sën bi am ku fa sànni ak ginaar gu dee. gu medd mu sànni ko ci sën bi mu bàyyi ba kaka sànni dugg ci këram mu gaaw daw génn jël ko far ko dugg ci biir këram mu bàyyi ko as ndiir dugg fekk ko mu commencé koo defar di ko suqi moog benn xale boo góor bu fa nekk mu ne leen xanaa lii du medd ngeen di ko far di ko jëfandikoo ñu ne ko ah kay da dina ñun ay jirim lanu sunu waajur faatu bàyyi ñu fi ñun ñaar dong ñoo fi des amuñu kenn ku ñu dimbale ci lu mel nii rek la ñuy dundee mu wax ki maanu loon ne ko li yor ci nu mu toll ji ñu waroon a demee màkka ko nangam la mu nag wañ ci lu ñu mën a yóbbuwaat dëkk ba te des lépp nga jox ko ñi loolu moo gën kon loolu day wane ne kon def sa alal ci yoon yàlla kon dañ dañu war a xàmme baax yan la mooy yan mooy ahami ahamiya di wala awliyaat yi nga xam ne ñoo jiitu ñu di ko ci def te nit ñi dañuy jàpp ne chaque jour nit ki euh, li sëñ bi wax léegi ci li ngay def day am loo xam ne jéggiwu la sa julli jéggiwu la sa aj màkk jéggiwu la sa woor jéggiwu la kon day am yàlla li ëppal njariñ nag mooy li ëppal njariñ jaam yi kon moo tax borom xam yooyu moom foofu lañu ñu nekkoon sëriñ bi tamit radiyallahu anhu foofu la nekkoon foofu la yar ak njabootam tamit ñu nekkoon ci waaye moo taxit tamit lu mel ni tey am fii man fi am ci daara daaray soxna jaara ji nga xam ne jàmbaar ji ko fi def yaakaar naa li mu finance ci dëkk bi def ko ci euh, daara ji kenn xamul toll ndax dëkk boo xam ne bi bi fi sëñ Basiru di jógee di fi bàyyi maanaam kër gi fi bàyyi benn néeg ban la fi nekk boo xam ne dañ koo xaddee seng moom la fi bàyyi te ku dikk tey fekk fi li fi ne da nga xam ne kon kooku la mu doon liggéey liggéeyu ko woon ngir jëm boppam waaye da koo liggéey ngir bëgg nit ñi di ko jariñoo mu nekk luy wéy ba faw kon loolu yaakaar naa ñëpp gis nañ ko ci moo nekk ci daara ji daara ji li sëñ boo waxoon ne sadaqatun jaariya def koo làmboo ci côté bu ne boo xoolee maanaam jëmmi boo ci dugalee sa alal am nga li ñu waxoon ne da ngay boo jëlee sa euh, sa alal dugal ko ci lu am njariñ loo xam ne day continuer lu mel ni gas ab teen wala wala wala defar aw yoon wala tabax daara am nga ko ca waaye am nga ca tamit li nga xam ne moom mooy jàngal sa doom mu am xam-xam wala jël xam dimbale borom xam-xam xam boobu di wéy di jariñee ba faw waaye itam dugal dugg na tamit ci bàyyi fi doom ju baax ndax sa doom ji nga fi dugal mu jànge fi tamit ame fi euh, xam-xam boobu di la ñaanal wala yow nga jàpp ci daara ji ña jóge jàng ci ñooña fuñ toll lañ la ñuy def dañ ci am sa wàll ak fuñ ko may defee nañ ko def tamit jeexwaat ko dañ ci am seen wàll kon loolu di ay njariñ yu wuute yu bëree bëri. kon nag sëñ bi wax bu ñu xoolee li fi indi daal wax yàlla lépp sax mu ne si ko commenté di ko wax njariñ yi foo ko takk weesu ko ba ci diggante sëriñ bi ak ñi mu yar ni ñu xettalee réew mi ay yoon yoon ci ñu wuute. ci jëmmi sëriñ bi ci boppam waaye tamit jëmmi sëñ maam Thierno waaye tamit jëmmi Cheikh maam Cheikh Anta ku ci ne xeet li réew mi ci jamono joo xam ne tubaab yi nga xam ne ñooñu colonisé woon ñoom lool lottoon nañ ci loolu kon lu yéeme la lu jéggi day la kon nag yàlla na yàlla fay la aw yiw waaye liñ ci war a jànge mooy ah li misli haasa fal yaamalil aamiluun kon lu mel nii nag kon ñi ci des tamit ci lañ war a yore war a royee waruñoo mujjee puso bi muy réer nañ continuer liggéey bi waaye tamit rawatina jàpp ci barab bu mel nii muy daaree soxna jaara ji def ci liggéey bi muy wéy ak sosaat ci yeneen tamit ba tax maanaam mu gën a yaatu ba duñ ko jéggaani fenn kon xam naa ne sëriñ ñu ngi sant bu baax di la suñu borom sàmm la waaye tamit li nga bëgg a liggéeyal islam bëgg ko liggéeyal ci yoonam wii suñu borom may la kàttan nga àgg ci foo xam ne kawe na suñu yor kon nag sëriñ Seexuna lañ daal di tofal rek mu tënkal ñu waxtaan wi ci ay abyaat yoo xam ne ay olof la ngir rek mu gën a mën a tënku sëriñ Cheikhouna moom mi nag rakk la ci sëriñ Mamour mi doon def waxtaan kon sëriñ Cheikhouna bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw ban rafetloo waxtaan wi ak kàddu yi fi jaar yépp comme niñ ko waxee rek dañ cee tofal ay bayit yoo xam ni génn dara ci li nga xam ni sëriñ bi mi ngi ko doon waxtaane xasida gi ñu ngi ko def ci baxar bu tudd baxru tawil mu doon itam ab laamiye ci ay laam la daanoo tàmbalee ko ci bismil ilaa lay tàmbalee te li may biral salaamun aleykum lay nuyoo leen na ngeen ko jël ci bismil ilaa lay tàmbalee te li may biral salaamun aleykum lay nuyoo leen na ngeen ko jël na buur dolli sun maam jaara ay leere ki ngëneel ñu yàgg saxal màggal ci dëkkam bi bil amal te di jaajëfal sëñ Mor ci thème bi mu indi tey di infaax te it lim wax ci yombul di toftalal te di jaajëfal sëñ Mor ci thème bi mu indi tey ci infaax te it wax ci yombul di toftalal li buur dénk jàm bi ci alal am ci àq yooyu da ko war di delloo seen boroom moo di ak matal na ciy def ci yoonu yàlla kem kàttanam ndax lu génni loxoom buur wuutalal talal ko lu dal na xel xel kon na cay dell ti bu nefsin di lañ xamoon bu cay tàng xol ndax kon njariñ la du lay dikkal nu wax xeeti infaaq xeeti dundal yi am la kon wa mimma razaqnaahum la buur wax ka wërsëgal te wërsëg xamal daa yaatu xam-xam ba mëng ca biir sa xel mu rafet infaax la ndem yàlla ngay defal defal yàlla ci jàkkaaki daaraak yu mel ni ñoom di dimbali néew ji doole ñiy raf li ngay solal ak it luy jariñ sab mujtama mel ni hôpital di forage defar ay yoon ni buur yàlla ngay lebal te ji yépp ci infaax la ay xeet la yuñ ci tër li am solo rek daal mooy na buur tax dalay sagal njariñ yiñ ci lëm muy ay ngëneelam lu yàlla lool masaalik sëriñ baa nuy limal sëriñ baa ñuy limal caat lu mat di xam bu dee luy jariñ jullit yi lay def ci dundalam ëllëg bis ba dañ koy ëllëg bis ba duñ koy duñ koy régler day mucc ci ragal bu dee luy jariñ jullit yi lay def ci dundalam ëllëg bis ba duñ koy rek la day mucc ci ragal ñi koy def ëllëg dañ leen di woo fu ñu wuyoo ñu naa na ngeen dugg seeni kër ci aljana bil amal duñuy jàq duñ fay tiit sabab baa di lañ defoon te loo joxe day wuutal ko ak lool da gënal jiwu fepp am ci gub te gub wu ne ëmb pepp ba fees dell mooy infaax nga nee di luñ fesal di infaq ci yoon wii yow murid bi dafa lu yey liggéeyeen ci sëñ Tuubaa dangay am lu sedd xel royal ci njaboot royal ci njabootug sëñ bi lañ yokk ci murid ci dëkkam bi ak yoonam njabootam gi màggalal xasiidaam yi bindal tey tasaari mu wër ba daj bu neb gox nde yi léeg-léeg dafay laaj nga def alal porosé yu jóg ngir rek liggéeyal sëriñ bi le nga def ca alal dug yàqaloo leble danga ko jël sëriñ bi yaroon ceet ay muriidam yu soobu woon ñu daa dundalee seeni alal ñoo di ay kumal mboroom àq yi seen àq jox leen ko ngir mu mat ka jiitoo di sal xurba ka nga koy cëral ka ak tumurankeek dab boroom cër la nanga ko jox sa infaax gi kon day am njariñ loolu lañu wéral nayak fuqaleeg siis ñoo di tax nit du dundale te jàngooro la dàqal ba bum dugg yow soxol nayak foqaleeg siis ñoo di tax nit du dundale te jàngoro la daqal ba bum dugg yow sa xol ma tëj fii te ñaan buur yàlla baaxee na xaahu naa njubag am lu ñuy infaaxe bay lee la koy solal nu delloo te ñaanal say xumoor yàlla sàmm ko te yàggal ko xam-xam te yokkal ko xam-xam ak fasaaxa mu wir tatal na buur yàlla dottil niiri leeram ak ay ngërëm ci rawdatu mam jaar sun mam jaara muy saxal kasaay sëñ Basiiroog ak njabootam de seeni jëf rafet na na buur fay leen ba luñ ñoddi dootu kal kasaay sëñ Basiiroog ak njabootam de seeni jëf rafet na na buur fay leen ba luñ ñoddi dootu kal salaatun wa taslimun min allaahi sil ola ala xayri xalqillaahi qad naalahul amal maal aali wal asxaabi dawman mu abada wa xayri xadimil barri feeg ñoo ngi neexi xel wasalaamualeykum wa rahmatullah xam naa ci gàttal rek waaja dalal ay mbokk muy ahlu minan ñoom kuréelu xasaayit la nanu war a ñëw jàng fi xam naa mën nañoo waaj su ko defee ñun dañuy leeral rek ni nga xam ne noonu la waxtaan yi war a tëdd suba incha allah ginnaaw boo xam nag ni rafetlu nan lool wax dëgg yàlla teewaay bi ak teewle gi niñ ko waxee woon ci njëlbeen ndax loolu rek lañ doon ñaan ci waxtaan wi mooy yaakaar jën ci am bay woo ay boroomi xam-xam ñuy ñëw di gaaral eh, day doon luy rafetal jitaay bi muy mbooloo moo xam ne dañuy teew ànd akuk dal tey diglu loolu nag seetlu nañ ko ci jitaay bi moo tax dañuy doole ñaanal lu baax sëñ moor suñ boroom yokk xam-xamam te sàmm ko ak mboolem ñi teew teewe jitaay bi di ñaanal bu baax it sëñ Muntaxa Sekk mi nga xam ne moom la fegool tam doonub jàngalekat ca daaru tanzil ci daara sëñ Muntaxa Mbàkke ji nekk foofu kon loolu yi ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax kon suba buñ ci yàlla yóbboo ak jàmm sunu jitaay bu njëkk ci waxtaan yi dana tàmbali onze heures et demie allah mu ngi nekk la solution par Maam Jaara Buso maanaam daal gis nañu ni soxna jaara ak dundam ak doxinam mën naa nekk solution ci maanaam àdduna bi jigéen ñi def ko seen royteef bay jafe-jafe jeex fi tem boobu nag ay boroomi xam-xam ñoo koy séq waxtaan ci waxtaan wu am solo bu soobi suñu borom kon ñuy sàkku seen teewaay ci jataay boobu suñ ci jógee it danañ euh, ci maanaam di heures maanaam juróomi waxtu ci ngoon danañ am beneen conférence bu mag boo xam ni enseignement éducation dans l'islam maanaam wàllum jàngale ak yar ci lislaam muy at tarbiyatu wa liim wala at taalim wa tarbiya maanaa ñu ngi koy def juróomi waxtu ci ngoon moom it ay boroomi xam-xam ñoo koy séq waxtaan ci loola it danañ ci sàkku seeni teewaay su demee ba euh, fukki waxtu ak wala fukki waxtu ci guddi muy 22 heures moom it dana amaat beneen jitaay bu mag boo xam ne l'unité la force des mourides maanaa al ittihaadu quwatul muridin maanaa doole wala euh, bennoo mooy doole murid yi loola it ay boroomi xam-xam ñoo koy séq waxtaan ci kon loolu buñ ko seetloo rek day tekki ni ay thèmes yu am solo lañ tànn jox ko ay boroomi xam-xam ngir ñu jàngat ko ñu man cee jariñu ndax màggal si la waaye barabu ñaanukaay la waaye barabu jàngukaay la te lii am njàng la ndax xeeti jàng ni dafa bari xeeti jàngale yi bari te xeeti waxtaan ak conférence ak panel yi yëpp am jàngale rek lañ ci jublu ak fàttali loolu it mu doon loo xam ne ay mënees ci am yóbbal am ci sëriñ kon euh, lu mel noonu moo tax ñu tànn thème yi di rafetlu seenu teewaay ci tey jii waaye ñu koy sàkkuwaat suba incha allahu rabbi ci heure yooyu ñu ko waxee ak ci borom xam-xam yooyu ñu ciy àndal. wax nañu ni ni ci programme bi suba maanaa ci guddi it 22h bu jàllee bu conférence bi jàllee danañ fi def programme boo xam ne ay way wala fal lay doon. yoo xam ne it ci wàll wi rek la jëm muy loo xam ne day jëriñ nit ñi ci maanaam roy lu baax ak loo xam ne daal njàngalem lislaam ak njàngalem Sëriñ Tuubaa doon waaye dañ koy wolofal loolee dinañ ci ànd ak ñoo xam ne ñu xereñ ci wàll googu lañ lu soobee suñu borom loolee ji ñu sàkku seeni teewaay kon waa ahlu nan kuréelu xasaay la mën nañoo jige si gaaral ci li ñu leen may wax nañ ñu 30 minutes rek lañ leen may su ko defee ndax mbokk yi nga xam ne ñoo yore wàllu technique bi ak ñiy liggéey ci mbir mi it xam nga comme programme bi dafa war a teel a démarrer suba ñu amuk dallu yi day baax lool ci ñoom kon lii daal lañ doon gaaral di leen sant di leen gërëm di sant yi mbokk yi àndaloon liggéey bi ci suba ba léegi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.